président bokku conseil supérieur de la magistrature man option bobu la am mais président dafa am ben démarche bo xamné au départ mu xawa noble mais mu ñëw ba ci fin bi mu xawuma jaaxal président dafa dajé ben ndëpp né dafa bëgg ñu waxtané ce qu'on appelle les grandes réformes de la justice oo ay borom kàngam yi mag ci walu xam-xam droit ay professeur de droit di ci jital le professeur Isaac Yankoba Ndiaye ak Pape euh, Bobakar Gueye nek coordinateur bi may gërëm sama professeur yi di leen ñaanu gudd fa na wër ak les grands magistrats des magistrats vraiment de renommée ak société fi ak képp koo ak le bras armé de l'administration nous ñoo xam ne beaucoup ngi ci ministère de la justice. ñu fait le ko ndëpp. bi ñu paree ñu rapport bu dépôt jébal ko ko. Mm-hmm. ne ko gars yi lii mooy recommandation yi. Mm-hmm. ci biir recommandation yi nag am na foo xam ne dafa dañ fa dañ ñaan queue de la. Mm-hmm. queue de poisson lañ maanaam dafa am magistrat yu d' accord président toog. am magistrat yoo xam ne d' accord ñu léegi nañ jël affaire bi jébal ko président. may fàttali nit ñi président de la République bien que il avait dit pendant la campagne électorale que moom yéene mooy mu génn actuellement sont les textes qui les lient président de la république conseil supérieur de la magistrature boolewu ci constitution Moko ko Bolé. à son article 90 alinéa premier. er le président de la république nomme les magistrats par décret. Mhm. sur proposition du conseil supérieur sur proposition du ministre de la justice. Mhm. après avis du conseil supérieur de la magistrature. le mhm. ñëw ci statut statut supérieur de la magistrature. à son article 4 mu répéter la même phrase mhm. donc doo wax doo ñëpp constitution jeexal na mhm. ñu loi organique mhm. parce que bu ñu xaatee statut des magistrats c'est une loi organique la te les xoolee statut des magistrats boobu non, sax loi organique dafa am dafa am ñaari loi yu a créé dafa am beneen statut bu gën a bu gën a confirmer loolu bu gën confirmer le constitution à son article 90 là, 1 bi euh, en 2017 on a pris deux lois organiques sur la magistrature il ce qu'on appelle la loi 97 10 ñoo ñëk une loi 97 10 du 17 janvier 2017 mhm. portant essai des magistrats mom mo ñew euh mom mo ñew remettre en cause la loi 92 bu statut réforme ko teugat ko statut euh, magistrat 92 mhm. très bien très bien ñu ñëwaat ñu jëlaat loi xam nga nee 2017 10 ñu jëlaat beneen loi 2017 11 du 17 janvier 2017 yëpp ay loi organique la mhm. 2007 2017 2017 90 2017 2017. 11 2017 11 l'organisation et le fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature. Mhm. remettre en cause l'ordonnance de 1960. Mhm. conseil de 1960 lañ ko 2007 bi ñu ko réformé article premier lu wax. Mhm. daf na yow président de la république boobu moo gën a leer waa gën daf na yow président de la république. Mhm. yow yaay jiite conseil supérieur de la magistrature. Mhm. ok mu point mu ñëw à la ligne mu ne sa ministre de la justice. yow yaa nekk vice président. kon président boolu ci boppam. Ah. mais nag benn affaire am na. su nekkee bëgg na cee génn moo ci gul ko ko ne mënoo cee génn. waxu ko délai bi nga ci war toog waxu exclusif. est-ce que pour mu génn si aussi dafa am yenn procédure wala à tout moment. rek mën na génn par décret par les c'est comme si vous tey une comme président de la République de bind lettre conseil constitutionnel. Mhm. la la démission est infidèle. Mhm. Si vous bàyyi une a wax il faut corriger l'existant. Mhm. modifier l'existant c'est quoi l'existant c'est la loi. quelle loi la constitution la modifiée. modifier. bu la modifier constitution jaruñu modifier la loi organique. parce que la loi tire sa substance tire sa légitimité sur la constitution. donc vous modifiez modifier loi constitution rek loi organique comprendre parce que loi organique ci constitution lay inspiré donc jaru ñu modifier loi organique boo modifier loi te modifier constitution bi mhm. taxul mu guen mais président fiti fiti fiti taxul mu guen c'est-à-dire même bu ne bàyyi mhm. te modifier loi bi taxul mu bàyyi taxul mu bàyyi déedéet c'est amul ben efficacité juridique amul ben effet juridique mhm. c'est comme si ku tas sëyam fa demoo tribunal <laughs> Sénégal fu neex mën nga faa tase mën nga faa takkee jabar hmm. mais boo tas sëy te sëy bu la valable hmm. tribunal moo koy tas boo demee tribunal boo tasee sëy tasul mais lii nga ñu wax ni juridiquement la mais politiquement ban lecture politiquement loolu politicien mën <laughs> mais yow nga apprécier mën nañ apprécier mais <laughs> wax waxeel la waaw ah. mais pour man du point de vue juridique c'est pas du wax wax parce li nga expliqué nii dafay mel ni kii moom tey su bëggoon sax tey mënul dem tant que loolu changé wuñu ko. la constitution léegi euh, les politiques ont tendance à dire que dañ koy topp ba mu sës mm-hmm. dañu waxoon lii donc dañ ko war a appliquer suñu ko defulee rek dafa mel ni dañoo waroo ak li ñu digle woon askan su may analyser du point de vue juridique damay wax du point de vue de la pratique judiciaire mm-hmm. maanaam ak l'avenir des magistrats foofu laay waxee mm-hmm. surtout magistrat xale yi jeunes magistrat yi waruñu ko bàyyi magistrat yi ñoom i neen la justice ñun ñëpp la incombe mhm. parce que dégg naa sax parce que li ma gën a jaaxalaat mhm. la moo tax conseil des ministres bi passé mhm. président gannaaw bi ñu ko jébale rapport bi mu ñor conseil des ministres mu ne voilà jot na rapport bi mi ngi gërëm ñu ñu doon liggéey liggéey bi ba pare ne maa ngi xalaat yeneen xalaat loolu wax de mu ne maa ngi xalaat yeneen xalaat ak proposition supplémentaire ndax man damaa war toog conseil de la magistrature allez c' est loolu moom jaaxal quoi. Yo, aspect li laa waxoon sànq je ma laajee ne ko. Mhm. du technicien les praticiens de droit ils ñoo xam ndax président dafay toog wala du mais pour vous résumer rek. Mhm. xam nga 1883 en France le conseil supérieur de la magistrature juddu. Mhm. mais il a fallu 2008. ñu président de la république génn ci ministre de la justice effectivement. en résumé rek Bassirou Diomaye Faye. dafa campagne assises nationales yi. li ma si ñëwaat xam nga esprit assises yi. wala waaw xam nga effet assise yi xam nga ak discours passif mhm. ci conseil supérieur de la magistrature mhm. donc man nag foofu laa basé wu ne mhm. bon ñun ñoo ciy egg quoi parce que ñu ñooy ay journalistes wala ay chronique voilà vous voyez loolu dafay du ma comme président Dramé mënu ma wax baatu wor mais lu xeet ak loolu lañ doon wax waxee waaw man je parle du point de vue plutôt juridique et technique parce que ak conséquence sur euh, l'indépendance de la justice xam nga l'indépendance de la justice n'est pas confiée au juge au magistrat mais ça, li ñu ko li athée. ko sant mooy mhm. mais du régler indépendant parce que on ne peut pas être juge et et maître et arbitre. nit ki ne faut pas régler mhm. nga l'indépendance de la juge est confié au président de la République. Mhm. qui l'exerce par l'intermédiaire du conseil supérieur de la magistrature qui l'assiste. dans son travail. Je vais vous donner un exemple. conseil supérieur de la magistrature bu ñu ko bàyyee magistrat mais est-ce que nous avons une bande de copains. ak bande promotionnelle. parce que apparemment les les la société civile loolu la wax est-ce que leen laisser. mu des fa moo parce que la dañoo benn affaire bu leen mer bu leen naqari ba léegi réglé wuñ ko. Mhm. parce que dafa benn loi bu fi président Macky Sall mhm. yi. Mhm. ñooñu bokkul 65 ans la ñuy demee retraite. mais c'est loi qui est qui est qui est célèbre. magistrat yu parce que yow nga bokk ñoo bokk forma fu ñu jàngee fu defee formation mhm. ñoo bokk waat nga waat ma waat ngay sorob may sorob ngay mhm. ngay ngay ñeneen ñi yëpp 65 ans mais loolu c'est pas une rupture de légalité c'est une c'est une rupture de légalité qu'il faut mhm. yi kese ñu war a affecté commissaires yi ñu ne commissaire sûreté urbaine ak commissaire central ak commissaire DIC ak directeur de la sécurité publique yéen yéen yéen ay affecté commissaire il est leen Sénégal. mais est ce que c'était pas est ce que non, dama ne est ce que y' a pas du du maanaam ñun ay Sénégalais lañ quoi. mais mais est ce que monsieur Thiam. ci euh, assise de la justice bi c'était pas une occasion pour corriger li ngay wax non dougal ko pour la correction. pour la noonu. Euh, li ngay wax ni. loolu loo amo loolu loo loo moo créé woon loi baa fi. waaw nañ modifier loi bi. waaw mais est-ce que amuñu won quand on parle de d'assises de la justice. suivre nga non je ça a évolué parce que dafa mel li gars di waxtaan moy légui créer ben commission autonome interne. Mhm. ci conseil supérieur de la magistrature qui soit élargi à d'autres corps. non dëgg les magistrats quoi. non c'est dëgg la dëgg la président wax président nee na nañ ko aussi l'énergie, élargir le corps de la magistrature à d'autres personnalités qui ne sont pas partie de la famille judiciaire en Belgique même en France comme ça en France président fait tànn ay membres euh, France depuis la réforme 2008 président dafay tànn ay membres yoo beaucoup ne bokku euh, président Sénat bi day tànn ak président Assemblée nationale la ñuy tànn daan ay magistrats yoo xam ils ne sont pas des corps de la magistrature mm. mais Sénégal mën nañ ko def d'accord mais ci kaw aussi xam la laa ci république la 4ème République. waaw depuis ème république la am ème corps ñu ne kon léegi mhm. li may ragal mooy ci si sa affaire boobu mhm. xam nga parfois magistrat dañ naan il faut que ñuy protéger magistrat yi par rapport à la pression extérieure mhm. par rapport au pression financière yi pression politique yi pression maraboutique yi tey man su ma dugalee conseil de la magistrature ma am benn copain homme d'affaires mais dana ma permettre ma jege magistrat yi saa fonte ñoom mun naa fa régler sama problème boo xam ne maa yónni ci biti lolu du créer ben rapport sama magistrat lolu la ci ragal mais man président toog fa mu ñak fa toog mu la mais président mom mo wara déterminer mo wara mo war ci guyam mom mhm. kep il a la seule responsabilité individuelle et personnelle devant l'histoire mhm. ne damay tok mu mhm. toogee tamit yoon moko ko may ah du ko xeet lii di lolu moko may man nak entre la les faits et la droit je préfère le droit mais nak su ko neexee mën na mais su génnee nañ ko organiser de sorte que suñu joxe ay promotion suñu joxe ay avantages nañ yemale ñëpp ñu ko yàlloon jox lan ko mais c'est ça lolu la yéen magistrat ragal dañuy jall ba légui xam comme mom day dabé rek heure bi jot nañu mais il faut ñu dabé xamna wa waa dañu comprendre may ñu touti rek ñu dabé ak euh, juridiquement ba tay damay desandi ci sorti euh, président Diomaye bi après les 100 jours dégg nañ fi sorti génn na fi barki demba limu wax yeb bàyyi nañ ci xel mais bi nga xamantene rek si lool lañ la mëna interpeller ndax xawon na jur ciow euh, politique yi wax nañ seen wàll mais en tant que juriste ban gis-gis nga ci am moy que quand il dit que moom il a été toujours sous l'ombre de Sonko depuis euh, plus de dix ans pour mu lorgner le fauteuil présidentiel mm. tay mom moko nek mm. waye meun nako wax ni que mu continuer euh, mu ngi def lu mu pour mm. mu yegg fa est-ce que c'est pas une sorte de démission en tant que président et juridiquement lan nga meuna a andi euh, ci wax déclaration bobu non. xam nga keroog dégg naa le président le premier ministre Sonko ne le ministre de la justice Ousmane Diagne dafa envoyé benn vidéo na ko seen booy bi. Mhm. kii borom kii wax li di menacer magistrat yi ci yéen la bokk benn waay laa ne est-ce que loolu Sonko war na ko wax ci en public. Mhm. man leen le gouvernement c'est une collégialité. Mhm.

Diomaye bien que si yàlla moom def muy président de la République du Sénégal tey mais ñoo xam Ousmane Sonko c'est la mooy belle politique mooy belle politique bi mhm. ci moom la yàlla jàll tey li fi am tey mhm. parce que nit ñi gëmuñ Diomaye ñi woteel Ousmane ñi woteel tey Diomaye mu nekk président gëmuñ woon Diomaye Ousmane Sonko lañ gëm on est d'accord sur ça mhm. loolu mooy fait réalité des faits c'est ça le factuel mais nag même moom bu ko xamee ci xolam mu namm loolu ne loolu mais franchement élégance républicaine mayoo mu di ko wax élégance républicaine dafa am ay limites Mm-hmm. am na yoo xam ne kenn du ko ci biir république ci mbooloo mm-hmm. même ci kër sax am na loo xam ne ay ay secret kër la mm-hmm. mais boo gënee ci ëtt bi sax waroo ko fa wax wala nga am ci mbedd bi da ko wax ñëpp takk rajo àddina bi ñëpp di la nga ne fauteuil bi am na ñu naan premier ministre day lorñe fauteuil président man waxuma lorñe sax même bu ko regardé c'est légitime <laughs> parce que moom laa ko yéene d' accord xam ne moom la ko yéene. parce que parce que bu ah. ko moo ko ak am na droit droit mais ko ko laa mm-hmm. ngi mel sa papa am na droit ne la sama doom yi kii laa ci gën a gërëm kii laa mën a yéene may sama kër gi loolu am na droit moo am sama kër sama papa deewagul. Mm-hmm. mais mën na ko yéene. mais quant est ce que si yéen sa yeneen doom yi di ko wax est ce que élégance la. Mm-hmm. c' est que j'ai dit quoi. Mm-hmm. mais quant à wax est pas sama problème pour bi moo nekkul la Ousmane Diagne na ko ko booy bi si yéen la bokk dafa saaga magistrat. qu'est-ce que je dois mu ne ko premier mu ne ko ministre dafa sa liggéey. Ah, ba tey comme ñu ngi dabe rek te may nañ ñu tuuti minute damay des foofu rek